soxna Soda moom mi nga xam ne moo jiite ëhlu Shuhada di mbootaayu soxna yoo xam ni dañuy liggéeyal Cheikhul Khadim restaurant bi nga xam ne moom lañ sasoo woon ci complexe Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalifa général des Mourides moom lay liggéey fii ci Touba restaurant boobu noppi na ba ñu waroon a jébbal caabi xalifa général de Mourides ci talaata ji dëppoog le 26 avril 2022 ci teewaayu sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke moom Cheikh Modou Fadal mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllum njàng mi ci complexe bi mu ànd kook sëriñ maam na Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou mi nga xam ne mooy saytu liggéey bi. ñu amal fa visite bu yaatu boo xam ni nemmeeku nañ lépp loo xam ne moom moo jëm ci liggéey bi chambre froide yi ba ci espace bi nga xam ne ci la ndongo yi di xéwloo mu mën a jël lim bu takk lool ci ay ndongo restaurant bi nag jigéen ñi lañu ko jagleel. Euh, jigéen ñi ci wàllu daal alxuraan ji ci wàllu jigéen ñi euh, ni ngeen ko gisee kon muy liggéey bu am solo bu rëy rëy boo xam ne euh, mucc na yëpp te teg nañ ko ci norme itam moom it wax dëgg yàlla mu sonn ci lool def ci alalam ak jitteem ak ak ak lépp lu ci war kon nag sunu kilifa gi sëriñ Axma ñëwoon fi tey ci ndigalu sëriñ bi di ko réceptionné euh, euh, di ko indaale cantu cantu sëriñ bi barab bi yaato woon yaatoo na lu mel ni juróom-benn téeméeri mètre carré nga xam ne restaurant bi dana dana mën a jël euh, benn yoon ñaar ñaar téeméer ak fukk nga xam ne kon bu fekkee rotation am na mooy ñaar ba ñett mbooloo dugg dana dana jege. juróom juróom-ñaar téeméer wala juróom-ñetti téeméer muy 700 ba 800 personnes yoo xam ne euh, mën nañ mën nañ fay lekke euh, euh, te loolu jigéen jigéen ñi rek la waaw kon nag loolu yaakaar naa doy na sëkk ci wane dayoo liggéey bi ak ak solo bu mu am. soxna Soodu Xuma mi nga xam ni moo jiite Ahlu Shuhada santaat na bu baax a baax Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou waaye sant mbooleem soxna yi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi. ndax ñoom seen yitte nee ñu liggéeyal Serigne Touba rek la. nag dañuy ci ñun sant suñ borom ci ba ñu mayee eh, eh, ndimbal mu jaar ci ñu baax ñi ba ñu mën a def lii ci ci fii ndax eh, sëñ Abdou mu baax ma yàlla nañ ko yàlla fayal def ñu ne woon saaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te saaba yi seen bakkan nag seen alal rek lañ daan joxe te comme joxe bakkan dafa kiwatul li ñu am ci akas néew ñu dugal ko ci liggéey sëñ Tuubaa kon loolu loolu rek moo waral suñu li ñu def nii ah bëgg nag rek ah, ngërëmal sama borom loolu rek lañ soxla. sëriñ Ahmadou Badawi moom Cheikh Mohamad faadal sant na bu baax a baax waa ahlu shuhada di mbooloom soxna yi nga xam ni liggéeyal sëriñ Touba rek moom moo leen ñor ak Pastef gi nga xam ne wane nañ ko ci complexe bi ba liggéey restaurant bi ci diir bu gàtt. soxna Soda Xuma moom ak njabootam ñu leen di wax ahlu shuhada ñoo ko def mu doon liggéey bu kawe liggéey bu màgg waaye ñëw ci weer wu kawe ci weer wu màgg kenn du ne guléet nag ci lislaam ndax taxawaay yi gën a am solo ci lislaam yu ci nekk mën nañu wax ne soxna yi ñoo ko jiite mën nañ ci lim lu baree baree bari ki njëkk a joxe bakkanam ci lislaam soxna la ba sallallahu alayhi wa sallam wax yu di wàcc ci moom booba metti na lool waaye ka ko doon dalal mooy sunu yaay sunu maam sunu yaay kon ñu xam ne jigéen taxawaayam ci lislaam yàgg na waaye nag sayyidatuna Maryama jaaratullah mi nga xam ne lii dafa bokk ci li ñu tuddee waañi maam jaare yi doy na misaal buñ ceemee rek li ñu wax lépp ñëw na. ginnaaw bi ñu bàyyeekoo ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim ci restaurant bi ñëw nañ fii ci Daaru nan ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides jébbal ko caabi yi mu am ci mbégte lool yëkkatiwaat ay kàddu yu cant jagleel ko soxna Soodu Xuma ak mbooleem waa ahlu Shuhada. wéral gàtt na tawfeex sëñ Tuubaa nga nekk ci sa yéene ji nekk ci lu yàgg yàgg yàgg yàgg loolu ko ñaar bu baax a baax a baax soo ko seet na guy barkàlla ab soññ la ci ci ci ñun ñëpp rawatina jigéen ñi jëf jëf jëf jëf la joo xam ne eh, ku ci teg sa bët rek man caa man caa yokk mën caa mën caa soññ sa bopp. mën caa jëriñu. waaw rawatina yëpp jigéen ñi. kon nag tubaarkàlla. xam ne. dëgg yëpp sëñ Tuubaa moo ko defal. waaye waaye nag ñëpp nga ko defal. jullit yëpp nga ko defal murit yëpp nga ko defal. tubaarkàlla ndax taxawaay bu rafet la. te yéen nañ ko ñëpp. waaw yombul waaye yéen nañ ko ñëpp. taxawaay bu rafet bu mat sëkk la. ñëpp teg seen bët. ci doxin wi eh, ak jëf ji. ci jotaay bi sëriñ bi jiital na soxna Soodu Xumba def ko jëwriñu ju liggéey gi nga xam ne moom la ñuy amal at mu jot ci Dakaaru liggéey bu ni mel nag mu boole ko ak waa daara Hizbut Tarqiyyah ñu ko ci taxawu.